ndax réew mi bari na ay ay ay ay gàllankoor bari na ay faatu bari na ay accident waaye li ñuy wax saa su nekk rek nit ne selal boppam di selal jëmmam tey tey julli tey ñaan tey sàkk sarax lu baax li ci am réew kilifa yi nga xam ni itam nit su yilifee dafa war di sàkk sarax kon ñi sàkku ci kilifa yi nga xam kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi ŋànk njaboot gi ñuy génnal njaboot yi ay sarax lu am solo la ci am réew ndax yàlla moo wax ne xus min amwaalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim sarax dafa baax dafay fan bari yu muy fànq ci ay musiba ak i balaa kon waaye lu ci mën di xew ñu ngi ñaan yàlla suñu borom musal ci ñëpp aar Sénégal aar njaboot bu barke Rasulullah alayhi wa salaam nawet bi tam mu àgg ci jàmm ak salaam te ñëpp muuroo ko